salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit di mbokk bi ñu ñëwaat ak yéen ci naafila du jour ci juróomeelu guddi bi tey nag naaf gi ñeenti rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon alam nasrah benn yoon ixlaas ñetti yoon fatiha benn yoon alam nasrah benn yoon ixlaas ñetti yoon allah ku ko def dina mel ne ko aji junni yoon ko umra junni yoon te des na ko musal ci ak ñàkk te des na dolli ay wërsëgam xaraf bu ci ne des na ko ca bindal ñaari malaaka yuy far ay ñaawteefam te di ko bindal aw yiw te des na ko yëkkatil ay daraja ba bis ba dellu si déwén te bu faatoo des na ko bindal tuyaabay ku dee ci jihaat te des na ko jéggal bàkkaaram yëpp te des na ko musal ci metti dee te faaw dana am ngërëmal yàlla te bu faatoo des na ko ubbil ci bàmmeelam bunti aljana mu di si xéewalu ba keroog bis penc ba kon nag mbokk yi Nouvelle Jour baa ngi noonu Al Fiqh TV mooy ñaanal koor jàmm